danoo am xeetu ndox. c'est l'eau yow ñun suñuy caméra eh. yow ñun suñuy caméra fa eh, jéggi mm. bi yow. yow ñun suñuy caméra <laughs> jëndee ñu ko marché marché bii rek ay marché ay marché <laughs> alizé ay yooyu. yow ñun suñuy caméra frontière o frontière la traversé xanaa gisoo ndox mi ni mu mel nabu koor. Mm-hmm. yow nabu gisoo suñu peinture yow ñun suñu peinture du xeeñ. du peinture yi xeeñ ah, yow xanaa gisoo ay décorateur ñun uh-huh. suñu ay décorateur xoolal barke barke sëñ Bamba <laughs> ci teg teg gi lañu ñuy dox. ñoo ci gilo bu ma leen ñii bu ma leen baaru rek góone dama leen di gàll. baax baax na yem na. baax na déedéet bu leen matinaaloo matinaaloo bu leen def ni ni leen ni leen Basiiru def Basiiru ni mu leen def rek doy na. internautes yi nee nañu ñun bu ñu demoon élection ak ñoom ñu pàcc. ñun ñooy jomaay eh, ñun ñooy jomaay. ñun ñun ñooy a ñooy jomaay cum. dégg nga loolu xoola jomaay xoola moo bëgg ku ko tudd kay. moo bëgg ku ko tudd kay. yaa bëgg ku la tudd tey ci jeudi bi. Eh, eh. da bëgg ma ñëw ci yow. ma ñëw ci jomaay. oui ma belle l'info yéen kaay nee na résultat provisoire yi présidence bu ñu naa sama. beneen ba mhm. Mhm. xamoon naa ne di ngeen ma jot. dara bettu ma ci dara am nga bale fii. yóot ma. yóot ma bale bi dimbali ma. bale mu ne. résultat provisoire présidentiel 24 mars 2024 bi Jomaay. Jomaay da leen a dóor ba ñuy bëgg a dee te barki sëñ Bamba nii laa leen ko waxee woon ne woon naa leen bu ngeen demee élection di leen dóor ba dóoraale ku ngeen yaakaar. ñii dañ leen a dóor a dóor a dóor dóor lii naa dóor dóor yi métti na métti ay man dóor yi fi mel dafa laalaale sama benn côté bi sax côté bi sama faar bi ni yow wuyu ma xool ma Pape Ousmane sama addicteur bi fii. déet du gaañu nag <laughs> andi koor gi jeexagul yaa xaja. ana bale bi tubaabam la luy bale tubaab. moom bëgg na boobu. bale boos la waaye bale la rek. indi ma bale bi mu ne Habib Sy Gakou ak yoon mu ne ñoo ñooy mujje maanaam ndaare avant ndaare avant avant nga ne ko buntu ko tuwaarkal jërëjëf tey bale bii lay reviewé bale bale la rek ñëwal ni ci beneen ub yéene kaay ñu xool nabu koor gis nga sama bale bés bi jour <laughs> mu ne Amadou Mame Diop mi vacances du pouvoir oublié mu ne dessin présidentiel le premier tour mu ne gam la suppléance précaire du président de l' assemblée nationale ah, Amadou Maam na nga def dama laa gëj a nuyu papa ba yaa ngi ci jàmm ana waa assemblée nationale nag waa na ngeen def ana ñoom kuréel ak ana ñoom Farba ba ñu ngi Farba Farba Farba Ngom Farba Ngom Farba gën a yeb ci àdduna bi ndeysaan da nga ko sonal ma sonal la sonal la sonal te pourtant noonu la baaxee Senghor maa ngi lay nuyu baax di la ziar jëlal fii fii a neex fii mu ne xalifa en terre may ma nii tuuti mu ne xalifa à terre Barth attend son tour dégg nga français bi mu ne Gakou un grand perdant cinq cent dix millions pour la CDC te li ci métti mooy ñii duñ leen remboursé de xam nga loolu. perte nañu. laa ilaaha illallah duñ leen pour pourcentage yi ñu def ci élection yi moo tax ginnaaw bés bi la jour ñëwal nii buuxal ma xool bu ci topp ay ay ca ñëwoon nañ sànq ci l'info ñu ñëwaat ci beneen uppi yéene kaay ginnaaw Habib si gannaaw euh, bés bi la jour. ñu ñëw ci l'observateur jërëjëf ñëw na ci avenir politique mu ne amadu mu ne c'est une voix dans les ténèbres ah bon rester à l'APR mooy mu toog Ngoné Saliou wala mu dem waxoon nañ ko démb de ministre bi. waaw ñoom ñu seetaanee xëy euh, suba titre lu ci waay man. ak euh, Pape Ousmane. Mhm. équation bi mu am ci ëllëgëm. lan lay def day dem wala day toog alburaax day créer parti boppam. wala day des biir APR. maanaam situation bi nan lay demee journal ba wax na ca interpellation des familles des victimes des manifestations yii observateur xëy ñu ne les premiers mots de douleur au président li ñu ko njëkk dénk ci ay kaddu. Mhm. ci ñi nga xamante ne ñu ngi am seen góomu xol ba tey. waaye itam démb ci Pikine na bu sa Pikine fi nga dëkk démb tàngoon na. ah, ah tàngoon na. Mhm. moo suspect bi à la police. et violentes représailles moom moo fa am. am na itam ay véhicules yoo xamante ne dañu ko incendier am na un proche du défunt boo xam ne dafa débarqué ca commissariat ba saabar la gàddu woon. waaw. moom la gàddu woon mhm. démb ba Pikine tàng na torop dégg naa am na bis Dakar dem dikk sax boo xam ne lakk nañ ko kër chef de quartier baak mhm. yooyu nga xamante ne jot nañu jot nañu xale yi jot nañu koo yàq ndax seen mer libération mu ne publication des résultats provisoires bu élection présidentielle bi mu ne lii boo bëggee dégg dégg victoire la mais victoire sans appel amul jiixi jaaxa jomaay dalee na jàpp jomaay dalee na wóor ma ñuy bëgg a dee wóor ma yàlla barki sëñ Bamba kii moo génn kaso ni Nelson Mandela ñu ne prime dip mu ne pale laa jëm kenn mësul gis lii kenn mësu koo gis porteur projet bi dañ koo élire au premier tour baa toog nga bu baax. yàgg na 54 virgule 28 pour cent des voix. mu ne mhm. xam nga ku ci topp. kenn Bapula Diéry Amadou waaye xam nga ñaar laan. 35 mm. virgule 79 pour cent yii doon logement waa ñett ñi nag ay projet de société yu urgent la. yoo mhm. xamante ne nii faaw na président Diomaye nga def ci dara du dëgg à l'épreuve des urgences comme le dit le journal loolu la xëy titre tey dëkk bi seer na nit ñi sonn nanu location bi metti na ci ñiy fay lu yaas beneen ba ca topp mooy emploi waaye boole leen ci beneen virgule mooy woyefal gi waaw woyefal gi luñ ci wax yéen seen woyefal wàcc na facture yi ak facture ndox yi mhm. yaa ngi dégg las mu ne les sept sage ñoom dañuy accélérer la cadence on accélère on accélère on accélère ndax ñoom dañoo bëgg Bassirou Diomaye lu mu gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw ñu def passation de service laaj ma ndax lan président Sall dafa war a dem te li ko jiitu mooy ne balaa le deux dafa war a aller bu doon théâtre Golbert Diagne ñu ne ko baaree beneen ba ca topp mooy le quatre danoo war a def prise d'arme ak kan président bu bees bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye conseil mu ne comme cour d'appel publier te ñëpp xam nañ ne Diomaye gañ nanu ko accélérer gaaw su ko defee ñu mën a jàll ci leneen ñëwal fii ci Walf Quotidien mu ne compression des délais du processus électoral les set sage ñoom danoo feere mag yi waaye Macky bañu dem boo demee ci ci communiqué de presse ba nga lire ko. bi nga xam ne seen conseil ba. conseil des ministres. président nee na leen waajal leen nag. bu waaw waaw administration waaw daal ne ministre de l' ci li nga mm-hmm. xam ne moo jëm ci prise d' bi. Mm-hmm. ah mm-hmm. na nga nga ko organiser nag nga xam ne. yaa ngi dégg euh, Joms bu ñëwee tuwarkal lépp day daal di baax. Hmm. waaw président de la république Macky Sall daa mel ni mu pare na pour takk ay bagages am Maroc lay dem wala fan lay dem hmm. xale yi nee nañu Macron lay liggéeyal ngoon Saliou ak kii moo ko wax na bu ko. non dama ne la GP bu Macron la ah GP woom la ah, ci takk ci takk bagage yooyu sax faaw ñu ñëw ci ndax ministre yi xam nga dañuy ànd ak ñoom ci takk bagage yi. waaw waaye ni ñu ngi takkaale nag. takkaale bi yóbbaale takkaale yu bari lu nuy takkaale mu ngi daal ay yëf takkaale recrutement yeeg signé contrat yeeg moom ñoom mooy nekk suñu deuxième point ay ca bu mhm. xel ñu dem man di ngeen xam ci réew mi bari na di <laughs> le quotidien mu ne maxalla bu ma réeree rek tëdd perspective pour le chef de l'opposition mhm. mu ne un avenir en en débat voilà c'est un enfin jeu de mots en débat mais euh, écrit autrement mu ne s'imposer au sein de l'APR ou tracer sa propre voie ben voilà le destin de Amadou Ba ginnaaw le quotidien le quotidien ñu ñëw ci source a mu ne après avoir décidé de s'occuper de la sécurité de Bassirou Diomaye fay xam nga ñi ñal la hmm. le GIGN xam nga ku nuy garde Ousmane Sonko toj sa mbaari mu naan tës tës àdduna nag àdduna ndekete nag sa maam lu ma waxoon dëgg yàlla mën na lu ne ay yow woone Saliou yàlla mën na lu ne di <laughs> GIGN ba tojoon moo ñooy sàmm tey dëgg la ah yaa ngi jom kay alburax. déedéet jom yu ma de ah si lan yàlla li mu def démb. ah salkaat. waaw lu mu def démb salkaat. salkaat cofal cofal waaw. bi ñu doon programmer résultat yooyu noonu. waaw waaw waaw waaw. face to face bu mujjoon. waaw waaw lay xaddee eh, Adji Sarr. waaw Sarr boobu lañ doon joxe résultat yi naa kay. te xanaa xamoo tey bu ñu defoon éphéméride da ngay xam ni bés ni tey ca daaw lañ fi déclaré woon ni dëkk bi dafa am ay euh, terroriste ki ay yu ni mel ah yu fi ne woon ci réew mi datub tey bi la woon yée datub tey bi yow bés ni tey yàlla yàlla eh, yàlla mën na lu ne ñañu ko jiiñoon la ñu génne ba ñoo yor nguur gi. ah ndekete di waaj a def passation coowal yàgg na ci àdduna ba. Mhm. man li nga yaakaar du loolu ndekete date bi suñu data. ku nekk mën na doo fàttalee saa su nee daal di waxaat la ca xewee woon ah, waaye dëkk bi ndekete àdduna lu ne mën naa ne tout est possible. GIGN nee nañu mooy garder Ousmane Sonko tamit ginnaaw l'histoire retiendra mu ne gestion des fonds politiques nomination des postes de direction nationale par appel d'offres mu ne un pour la BNDE le fonds 6 le fonds la c mhm. la DER la banque agricole ñoom ñëpp dañoo fusionné mu ne mise à mort du t ñaf du CSE mu ne ak du HCDS amuñu fi benn njaay nañu fi jógee. te boo wóor kay. fonds yëpp. waaw. DER. kii Diomaye mi xàmmee ko lenn rek ko tax a jóg bale. <laughs> wala HCCT. <laughs> CSU. DR. beneen bi bay HCDS. bale. jomaay mu boolewul dara dara dara dara. te loolu dina tax au moins ñu ñu ñu daal di jenc euh, wala yàqanal. Mhm. xaalis bu toll ci trente cinq millions. mais nañ waxante dëgg sincèrement. ñii ñii bu la neexee nga ñëw ci ngóole Papa Ousmane ñu wax la ci ñii amuñu njëriñ ci réew mi nan waxat dëgg <laughs> Les Échos mu ne mort de Diop mi un repris de justice qui vient d'être élargi des suites d'une bastonnade mhm. Pékin Ouest la xewee agent bi dañ ko indexé ay caméra euh, caméra euh, camarade plutôt ki nga xam ne moom mooy M Diop mi dañoo attaqué également la police police tamit daal di riposte ak force te xam nga riposte police moom l'acranaat grenamosène la donc foofu ca Pikine tàngoon na jël mhm. Diomaye ak Amadou Ba dañoo xam fi 90 pour cent euh, mu ne ñi ci des nag di seddoo nag kii yi desiti cofet ki waaw ñooñu waaye ñaar ñi boo boolee seen doole boo boolee pourcentage yu ñu am toll na ci 90 pour cent Vox Populi mu ne Bassirou Diomaye Faye obtenir nag 54 virgule 28 pour cent avec 2 millions 334 751 voix yoo xamante ne ñoom ñoo ko votel Amadou Ba nag am na 35 virgule 79 pour cent ngir yàlla baal ma voix <laughs> dama ko baal ma yem ci pourcentage bi du dëkk caution non remboursée plus d'un demi milliard de francs CFA perdus par les 17 candidats malheureux du xam ngeen leen mhm. d'accord mu ne qui n'ont pas pu obtenir le minimum de pour cent am na on ne devient pas président par hasard je pense que Bassirou Diomaye Faye est préparé à la tâche ah waaw mu ko préparé wu kuy préparé dernier conseil des ministres ultime directive de Macky le journal Vox Populi nous en parle ce matin allez ñu dem ci sport bi wax ci fenêtre FIFA deux buts sont forcés mu ne Sadio la marque des grands ah il reste toujours un très grand footballeur notre Sadio Mané mhm. voilà ça c'est notre ci quel Sénégal face à la RDC et la Mauritanie en juin c'est une question que se pose le journal Gabon ak Bénin deux visages également des lions et puis vous pourrez lire euh, Sénidia euh, qui relance également le débat bi nga xam ne moo concerné les les les gardiens de de but les goals alors ñu tëj ak sunu làmb nag tubaarkàlla ajaratu ndam koor ginnaaw ba ma la nuyoo ziar la màggal la ci bés bi te xam ne dangaa bëggub làmb te boo naan pirip ma lay bale sunu làmb mu ne Ama Baldé neel benn. benn Boy Niang neel ñaar. Siteu mu ne ñii c'est la génération soo à l'assaut du fauteuil royal dama lay wax. Modou Lo jot naa ñaar sa tekki Boy Niang itam ñam na. Siteu moom itam xam nga fu mu nekk nii dafa nekk en vent maanaam li la làmb ji bëgg a wax mooy Pape Ousmane. mooy. gis nga ni politique bi ni xale yi jàppee mag ñi. boo moytuwulee ci làmb ji mag bu fi nekk di daras daras bu la fi xale fekke dañ lay bàcc balewaale Modou Lo ngi de merci <laughs> ah, Lambel jërëjëf